maa leen nuyu di leen ziar nuyu waa ADEAN li nga xam ne tey bon fii lañ ñëw tey seeti suñu ami muy Lamine Cissé ñu ne ko l'homme sans frontière man je me nomme Aliou bon ni ñuy gën ma xamee ci Aliou Casa parce que ni may yëngu ci wàllu football moo tax quoi. waaw fii moom bon sama dëkk la man samay maam fii lañ jógee parce que ñun Senghor mooy suñu cosaan. yàlla ñëw boole ma kii ñu nekk Casa Sport moo tax ñu xamante Cap Vert moom mu ngi Cap Vert ñu boole ñu yàgg na trop def na des années yàlla def mu nekk suma nit lépp lu muy dugg il m'appelle daf may laaj suma xalaat ne ma nii laa bëgg a defee mu taxaw ci di organiser ay tournoi tournoi bi mu organiser nii sa jaaw bi passé nii bemme bi ñu def bemme depuis daaw la ko defoon mënu ma woon ñëw fekkoon ma jàpp bu ren bi mu def ko trois mois avant la ma woo mu ne ma tabaski ma ne ko yàlla baax na. fekk équipe féminin suis Sport Je suis ma équipe bon si de mission du président équipe demi-finale coupe du Sénégal mais départ Carrefour fajar 6 heures du matin def parce que vraiment je suis ma invité d'honneur amoon parrain bu mat parrain muy ñu grand Bayo Sora ñu koy nuyu de passage vraiment affaire yi jaaroon yoon mais bala bu fekkoon na ñu doon doxli aussi quoi parce que mom conseil la aussi mom suma conseil la ci walu football bon bañ yegg si fii quoi. paraît que vous êtes derrière l'idée de créer le. waaw mom c'est mon ami. comme ni ma ko waxe rek tay bon depuis daaw ñu ngi liggéey comme ni ma la ko waxee ma koy wax ne ko fo nga def lenn bi ma fa demee balaa boobu sax dafa tournoi bu mu organisé woon daaw final bi. biñ ko joué ba paré le meilleur buteur le meilleur joueur muy Lamine Dramé après la ma anecdote bu graw la parce que joxuma directement parce que yag na mo daf daf statut quoi néma Aliou Kaza ah man né produit mu ngi ni ko xamné bo ci jappé xamné japp nga ci boko jappul nak boy booy bu réussir ñu ma xamné ci yow la après ci la xol ma eh ma capturer ko ma statut ko quoi ma ko inshallah yalla baxna ci lañ ci waxtaan bama jël boy bi indi ko ci ngeen sor daw même pas 3 mois franchement ba goudi may wax ak yow ni Oslo mu ngi Oslo waaw mu ngi ci hivernal loolu xam nga loolu sant yàlla la ay trois mois loolu moom moo ko jox te booy boobu bemme a jógee kon tey yàlla boole na suñu mbir am yeneen yi ñu yi ñuy liggéey encore tey ba ñu yegg si fii école de football bi maa ngi ci doon waxtaan moom dëgg la boole koog gars yi fële Ziguinchor ñu déposé kayit yi wax ko nu ñuy def yëpp déposé yàlla def parce que gars yi dañ ma ne ñoom sa ñoom a ko ne comme Adiane musu am club. moom bu déposé rek gars yi dinañ a jàpp mu génne wax naa ko club bi dañuy toog ay 10 ans di wut kayit du am yow nga def même pas un nga am loolu Adiane defe naa war nañ sant yàlla bu baax quoi loolu moo indi idée bii nii yëpp quoi. en tant que waaw dañu impressionné wu maa ngi koy wax suma euh, copain bi Manga euh, parce que ñun ñett ñoo ànd keneen ki Bakary la anecdote moom Tunisie nekkoon na Tunisie. beneen grand bi sax def formation nekkoon na si entraîneur du ancien joueur Casal aussi pour wala ne affaire yi caaxaan indi fi Manga c'est un mu ngi benn académie afa Dakar créé na ko fi aussi am na complexe bu nekk Ziguinchor bu nekk benn université bu mag boobu daanaka moo ko géré mooy préparateur physique bi joueur bu ñëwee moo leen di préparé maa ngi koy wax léegi en général foo dem ci football ah, Sénégal mag yi bu ñu joué da ngay kontaan mais xale bu ñu joué da ne xale yi ñoo tax football mag yi kon talent baa ngi fi wax léegi boo xoolee boo demee si yi gën a reculer talaay fa lañ ne Adiane man xaw moon ne am na lii mais dangay xool booy gën a ndaw u yi bu ñu contrôle yi ñuy def contrôle yi orienté di passe mag yi mënuñu ko U17 kon loolu daf lay won ne la kon fii yaa di talent su ñeen poussé rek defe naa ne di dinañ ciy jàpp xam naa ne du yomb nag parce que liggéey bu bëri mu ngi ci parce que ci wàllu parents yi xam nga psychologiquement ñoo xam ne xamuñu xam nga lu bëri ci football pour nga pour nga kii leen ñu bàyyi seen doom yi di dem dafa laaj liggéey bu rëy mais incha allah defe naa loolu yëpp nañ ci liggéey te bu soobee yàlla du lépp la ñuy wax mais ñi ngi waajal loo xam ne incha allah gëm naa ne Adéane da ciy déwén mën na am changement bu rëy quoi ci wàllu football. waaw après bu ñu defee yi parce que sélection yi warul yem tey nii rek normalement parce que dañ bëgg def lu sérieux aussi quoi def loo xam ne day professionnel parce que école de football boo bëggee liggéey wax naa ko académie la da bu dee U13 bu la. maillot 25 la bu dee dossard 25 U20 noonu U17 noonu U17 pour liggéey bi sérieux parce que mënuloo jël ay nit di liggéeyloo ñi sol ñi duñ sol parce que amul sentiment ndax ma woo ne ma ah ñëwal de ñun Adiyane lañ dëkk ñun mënuñu jël fi même benn jour parce que fii de seen papa yi dañu mën a ko non football lu demee noonu football business la entreprise la amul sentiment ngay jël ñu mérité ñu joué ñu mérité wul ñu dem liggéeyaat ñu xool ni ñuy structuré affaire ñu commencé liggéey bi comme am nañ kayit lu gën a jafe defe naa ne bu buñ liggéey ba ci kanam compétition yi gars yi def ci école de football yi sax au niveau de Ziguinchor ñu war nañ ci mën mën a bokk quoi. qu'est-ce que vous quest que nous attendons non réussite totale. waaw parce que man li ma. waaw loolu xam nga loolu moom bon boo xoolee boo gisee ñu ne la école de football am na loo xam ne yow yow gars yi ñoo koy def ci xale yi parce que ñi ay xale lañ parce que gars yi dañu ne bant bu tooy jubbanti moom nga mën a jubbanti bu jub quoi mais bant bu demee ba wow boo ko bëggee jubbanti bon day damm rek mais comme ñi ay xale lañ xale da nga koy éduquer te en ma wax te boo doon dem génération foot tey booy bi nu mu ko def nii du dugg noonu génération foot dañ lay wat. ngay watu parce que pour wala na rek dañ dañ lay éduquer parce que football loolu la laaj boo fa doon demtee tey dañ lay éduquer man yóbbu naa fa suma booy boo xam ne nekkoon na Belgique mu ñëw ñibbi si mu war a dem foofu noonu te dafa dërëj te joueur la professionnel day def day te sax mais dafa dañ ko wat pour wala ne la foofu jour football lu caaxaan quoi football entreprise la mooy métier bu ëpp xaalis si àdduna bi fu mu nekk nii kon boo ko yoree du loo xam ne dañ koy caaxaan gars yi nañ xam ne lu sérieux lañ am loo xam ne ñëpp dañ ko soxla woon ñoom am nañ ko ñu jàpp ci parent yi jàpp ci jàppale ñu si liggéey bi incha allah ñu réussir liñ bëgg a def nii quoi. waaw ok maa ngi leen di remercier aussi non maa mooy baake de bari bari nga nga demoon nii ndoroon moom mais sax nga maale de demoon nii <laughs> ah yow ala barka bu ñaamalam dara waaw affaire yi moom merci vraiment ñu ngi leen di remercier yéen tam seen liggéey bi a seen site bi di leen ñaanal tam ngeen dem ba am comme tey ay TFM ay pourquoi pas Casamance mérité nañ loolu aussi nee ñu parce que talent yi bëri nañ kii rek maa ngi koy wax ne ko tey am na noo xam ne bu ngeen ko tolloon tey duñ sonn xam nga pour wane talent yi foog ñu am tam ñi pousse ci wàllu média yi aussi parce que gars yi ñooñu loolu lañ am leen di ñaanal tam ngeen taxawal fi lu mel ni lu TFM wala Walfadjri wala yeneen kii incha allah dégg nga ok di leen remercier merci beaucoup.